Mm-hmm. asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine leen ziar naa leen sama gars ba lépp jàmm waa ay ñu jàll ci recette tey bi toujours ak les partenaires euh, ferme Gandiol euh, di leen fàttali rek panier ramadan yi waaw fan yi nag mooy bomb bu ngeen yéexee ñàkk de gars yi ngi koy xëccoo de waaw këñ seen panier ramadan yi nga xamante ni la ca nekk moo complet dugg leen ci site internet bi def seen commande pour ñi nekk Europe bu ngeen commandé seen ay famille dinañ ko jot sinon numéro de téléphone it jàll rek wala ci application bi waaw ay ñu jàll ci recette tey bi nag comme ni ñu koy defee chaque jour ay wa ñu dem sama gars waa ayca nag ñu dem ci beñe yi tey tey beñe la waa nañu beñe tuuti beñe yoo xamante ne yu bari bagage la waa di nuyuwaale waale ami Chanel ndax euh, beñe yi moom fourrage bi coco choco bi ci moom laa ko ci moom moo inspiré donc dinañ defar ci benn pat ñaari beñe ak lait concentré sucré beurre ya cay dem daal zeste d'orange fleur d'oranger cannelle ak euh, noix de muscade nen ak farine donc lu toll ci quatre cent euh, quatre cent millilitres euh, lait concentré sucré wala meew nga jël meew def suukar donc lait concentré sucré bi moo tax du ma def suukar ñaari nen parce que euh, beñee soxla bu muy bëri nen zeste d'orange ak citron mu ànd ci parfum bu neex nañ ko vanille waaw vanille wall ba mu saf mi ngook wala sucre vanille soo ko amulee fleur d'oranger mi ngoog mu ñëw gunge waale zeste ñu def ci tuuti cannelle euh, neex na ci beignet ak euh, noix de muscade donc base du parfum bi ak liquide bi moom la ñuy njëkk mélanger beignet yomb na de waaw beignet yomb na mais nag euh, yu neex yee jafe mi ngoog te ñun nag beignet ak jus moom ak ataaya dafa bokk ci ñun waaw dafa bokk ci ñun surtout weeru koor bi nga xam ne yàlla boo karmat waxtu bi bu desee tuuti nga naan sa kaasu meew dóor ci sa ñaari beignet ah da ngay dégg jàmm de waaw këy euh, beurre baa ngoog seyal nañ lu toll ci 100 grammes beurre parce que cinq grammes farine la ñu def ngoog daal di yëngal euh, tamiser ci sunu farine ak mois euh, moitié sachet levure nga dama bëgg yu croustillant man ndax sama timu croustillant bi ma am moo tax du ma def levure bu bëri léegi nag ñu def farine bi waa daal di tamiser moment bi nag bu leen fàtte waa nañ ko tamiser bu leen fàtte sunu partenaire bi ferme Gandiol waaw panier Ramadan yaa ngi fa Euh, baax na ci sukkaru koor bagage yi ca nekk moo complet soxlootul ngay jënd ay suukar ak ay meew jëndal sa pañe ramadan ferme gànjol rek daal di yóbbul sa say njikkeek ak say goro maa la wax lii lu bëri ngay am de waaw lu bëri ngay am sinon fruits et légumes yaa nga fa selon saison bi euh, produits fumés yi lu ci mel ni dinde fumé euh, le pardon excusez-moi lu ci mel ni poulet fume pigeon fumé am na ak caille fumé yooyu dafay baax nga am ci booy defar say genre omelette ak di war a nga xar ko rek def sa mburu yooyu dafa neex dogg sa yaasa yaasa ginaar yaasa ginaar poulet fumé yooyu yëpp daf ci baax donc nen yee ngi ferme gànjol euh, les caillé les entiers meewu nag piir yoo xamante ni Sénégal lañ ko defaree la la jóge nga xamante ni jéggaane wuñu benn yoon ay produits yu frais qualité incontournable léegi yaa ngi seenaale noonu texture bi ma am ci pâte bi ma ko diviser en deux bala ngay séen ci bool bu ndaw bi boobu laay def beñe beñe coppate yi bii nii may travail moom laay def beñe fourré yi dama ciy ñëw def chocolat ak coco waaw ana ami Chanel ami de la nga bañe moom mënatoo ko boobu beñe boo koy reprendre sax ami doo ko mën waaw kay bii moom xam naa Penda dina ko mën reprendre Penda ba borom Liberté 6 madame Guèye ok moom bëgg na ay beñe moom moom tamit mën na beñe torop mi ngoog beñe nag moom ku nekk ak sa catégorie léegi nañu filmer def ci frigo bi bàyyi ko tuuti mu reposer laata ñu koy saaf waaw ay kii yaa ay dara jëlal beñe baa ngi de moom nee na glaçage bi moo ko gënal waaw moom beñe glaçage la defar mi ngoog léegi ñu jël chocolat bi rek mooy chocolat bi ñu xam bi may bañ a jaar ci turam ndax ñu waaw léegi nga jël sa koko râpé boole ko ak moom mingook mën nga tamit togg sa koko mu nekk genre ngatu koko koko nature bi nga nga def ko dugal ko ci biir beñe bi loolu tamit da ngay day neex boobu dinañ ci ñëw beñe ngatu ko ko waa léegi nga lem nag mi ngoog daal di sele ñaari côté yi pour dawlin bi bañ ci dugg ñu defaraat yeneen et puis jàll ci friture bi yow juutal sa dawlin bu set wecc daal di tàngal température bu bu baax bi mu bañ a sens trop ñu wàññi suñu gaz comme ça beñe bi ñor si biir léegi nag bii dama ci def raisin man damay bëgg di lekk beñe di daj ci raisin bi léegi nga def sa ay boule sa ay boulettes daal di ko ciy def bàyyi nag ba boulettes xar moo lay wan ni beñe bi ñor na beñe bu ñoree day xeeñ mooy odeur bi waaw këy mangook dama sax am timu waaw këy ak timu courgette mais xanaa sama suiveur yi ñoo neex nag <laughs> non aw ma seen fay nag commentaire yi man ñoo may wéttali damay dugg ci commentaire yi damay ree bay bëgg a dee amiin ci ñaani ndeysaan defar nga gis ku la ñaanal ba sa yaram ndaw mais dangeen ñàkk ki ñaan rek da ngeen baax nag da ngeen baax macha allah. waa tiim Alphie Cuisine waa Liberté 4 ana waa Saint-Louis samay bàjjan samay tante ndeysaan ñëpp ay jàpp ci combat bi tata Maam Dior Adja Ndiaye Abi Ndiaye Aram Kayta sama bàjjan yi sama turandoo alfi Kumba ñëpp ngi seetaan Alphie Cuisine mais jaajëfal naa leen nag beñe yaa ngoog ku ne jëlal sa bos waa mi ngoog ku ne jëlal sa beñe defar naa tàndarma dagg tuuti fruit pour accompagner ko Euh, donc nag on se donne rendez bu demee rek euh, ak euh, les sunu partenaires ferme Gandiol comme ni ñu koy defee saa su nekk ñoom ñoo ñu gunge ci waañ bi et puis n'oubliez pas de di abonné wu rek et puis di partager vidéo yi à demain incha allah pour benn recette donc tey beñe yi la beñe foure mi ngoog coco chocolat à demain incha allah jaajëfal naa leen sama waatim les fans de Alphie Cuisine si WhatsApp bi à demain incha allah jaajëf.